أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أولي المزيات بسم lii ab tënk la bu gàtt ci lenn ci dundu Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Moustapha ngi gane àdduna ci fukki fan ak benn ci weeru tamxarit ama wasasin atum junni ñetti téeméer ak juróom benn dëppook 17 septembre 1888 ci Daaru Salaam nettali nañ ne bi muy gën a àdduna mi ngi fekkoon sëriñ bu mag bi ci biir àll bi jamono yi muy wër dëkk Touba ndaw yi ñu yónni woon ngir ñu seet sëriñ bi wër nañu ko ñetti fan door koo fekk ci barab bu ñuy wax fetto ci taw bu bari foofu lañu ko yëgalee gën ak àddoog Cheikh Moustapha way juróom wu jigéen mi ngi tudd soxna Aminata Lo yi nga xam ne mooy way juru Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke te bokk ci askanu kokki nettali nañ ne way juram woowu ku teel làqu la ngir lu mu jaayante woon ak sëriñ bu mag bi Cheikh Moustapha ngi dale alxuraan ci sëriñ bi bi sëriñ bu mag bi demee ci géej gi ci 1895 fekk mu toll ci juróom-ñaari at mu àggalee am njàngam ci sëriñ daam Abdourahmane gannaaw ba it jànge na ci bàyyam maam Cerno Ibra Faat ba ba sëriñ bi di jóge Gabon ci atum 1902 fekk mu am fukki at ak ñeent Cheikh Moustapha bokk na ci yi fekki woon sëriñ bi xumaak jamono yi ñu ko yóbboo gànnaar mu nekk fa ak moom ba mu ñuy delloo si sëriñ bi Thiéyène ci 1907 mësta tàqalikook sëriñ bi ba bi ñu koy indi njaareel ci 1912 foofa la ko sëriñ bi joxe ndigal mu sanc dëkk ci wetu Touba ci barab bu tuddoon Tindóodi ne ko mu tuddee ko ma maab gi nekk ci aaya bi suñu borom di wax inna allazina amanu wa amilu salihaati Touba lahum wa xusnul maab bokkoon na it ci ñi àndoon ak sëriñ bi ci ndakaaru bi ko fi gouverneur wooloo ci 1921 bi nga xamee ne xaalisu réew mi daanu na moom la sëriñ bi yónni jox ko lu toll ci téeméeri junni ci jamono yooyu ngir dimbalee ko réew mi lii lépp nag day firndeel kóolute gu sëriñ bi amoon ci Cheikh Moustapha diir bi muy nekk ak baayam tey sëriñam Cheikh Moustapha doon ku ràññeeku lool ci pastéefam ak njàmbaaram ci liggéeyal sëriñ bi ba àgg ci sëriñ bi daan seere ak pastéefam li mu jaayoon ak njuréelam jënde ko ak taalu bi taxoon na mu daa bind ay kaamil yu bari di ko jox sëriñ bi addiya daa bàyyit lu bari di ko ko yëg bisu talaata bi sëriñ bi làqoo ci atum 1927 wane na ak dal gu yéeme gannaaw bi mu yëgee xibaar bi ci la fexe ba yóbbu sëriñ bi Touba ci anam yi ko sëriñ bi bëggi woon ba ñu ko war a yëg dong nga ko yëg gannaaw bi mu wutoo Cheikhul Khadim te doon xalifaam bi njëkk ci ñeent fukki atam sëriñ Modou Moustapha fas ak àggale naa li sëriñ bi te bi ci ëpp solo te gënoon a ñor sëriñ bu mag bi doon tabax jumaay Touba njaal benn xilaafaam nag doonoon lu jafe ngir gàllankoor yu bari loolu teewul sëriñ Moustapha musula dañ di jëfe ci dal ak mat ak xel ak jikko yu rafet yi ko sëriñ bi yare muy ragal yàlla ak pit ak njàmbaar ak muñ ak noppi ak ngor ak tabe mu taxawu ay rakkam taxawaay bu rafet gannaaw ba seen baay làqoo ngir ñu bari ci ñoom moo leen yor te nangoo daj lu ne ci ñoom ba àgg ci ku toll ci sanc kër ci ñoom moo la sanca boole laag jumtukaay yoo tooge ku ci mel ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Sëriñ Abdou sëriñ Souhaïbou sëriñ Saliou sëriñ Murtada soxna may

ndimbal li ko yàlla defaloon ci jublu gi ko tubaab yi jublu may ko mu mën a laaj at ma ca topp ndigalul ak gali liggéey jumaa Tuubaa ji nga xam ne sëriñ bi am na lu mu ca jotoon a tàmbali fekk tubaab bi sëriñ bi dénkoon liggéey bi te mu tudd talari doonoon ku bëgg ba sàggane liggéey bi mu Moustapha nangu liggéey bi ci moom talari daal koy yóbbu ci yoon ba ñu leen àttee ca France ñu daal di jox tubaab bi dëgg daan yoonu murit mu war a joxe ndàmpaay lim bu takk mu toll ci juróom fukki junni ci jamono yooyu. gannaaw bi ñu wutee ñeneen ñu war a àggale liggéeyu jumaa ji mu des yeneen gàllankoor yu bari yu mu war a saafara bokk na ci gàllankoor yooyu ñàkk aw yoon wu jëm Tuubaa wu mën a indi jumtukaay yi liggéey bi laaj ak ñàkk ju Tuubaa ñàkk ay doj yu mën a liggéey jumaa ji ak ñàkkum ndox gu tar ci Tuubaa ak yeneen jafe-jafe yu bari waaye bi ñu feeñalee carrièreu ndokk te digganteem ak Tuuba toll ci fukki kilomètre rekk ca la saafara ñàkkum doj yu ñu liggéeye jumaa ji ngir jële doj yu ndokk indi ko Tuuba nag lu toll ci ay junniy junniy taalibe ànd ci ak seeni njiit ñoo jaayante taxaw temm ci indi xeer yi ñii di ko yanu lu toll ci fukki kilomètre ñii di ko teg ci seen sareet ba lu bari ci ñoom faatu ca pas-pas bu ju réy jooju ñu amoon bokk na ci li jàppandal liggéeyu jumaa ji ngir saafara ñàkk yoonu jëm Touba nag ci la Cheikh Moustapha soobee liggéeyu jële raay bi njaareen indi ko Touba ci alalam ak niti boppam naal boobu doon lu kenn mës a gis ci jamono yooyu te ñu bari gëmuñu woon ne loolu mën naa nekk waaye sunu boroom dimbale ko muy ko am ngëm tey jàmbaar te yàlla boole ko taalibe yi am pas-pas lool rawatina Baye Fall yi ci njiitul seen xalifa sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall taawub Cheikh Ibra Fall ak yeneen seex yi pasteef gu mat googu ak ngëm gu rëy googu tax ba ñu àggale liggéey bi ci diirub at lu topp tis bi saxaar gi ak seetu baax Cheikh Moustapha am na ci ndam lu rëy اليوم الذي يكون مسلما يا تتمنى فتنا بأفضل الإيمان ba tax lu bari ci ñu ko wanoon gannaaw mujj ànd ak moom loolu bokk na ci li gën a dëgëral yoonu murit ak li tënk aw doxinam ginnaaw sëriñ bi lu jëm ci wàllu koom-koom Cheikh Moustapha nekkoon na ko xam mbay te xereñoon ci doxalin loolu bokk na ci li ko may murit yi seenu mbay daana nangu lool ci jamono yooyu cheikh Moustapha sancoon dëkk yu bari ci réew mi ku mel ne Taïf ak Bayla ak Nayda ak Ñaaxeen ak yeneen gannaaw ba ñu dénkee liggéeyu jumaa ji société de dragage ci la ñu teg xeer bu njëkk jumaa ji ci bisub àjjuma ñeenti fan ci weeru mars 1932 waaye li ñuy farlu farlu teewul am na yeneen xeeti gàllankoor yu laxasu ci liggéey bi lu mel ne ati pest yu metti ya ak rafle gu targa boole tëgg gu metti ga ba ñu bari faatu ca ak geeru 1939 45 ci diggante booba nga xam ne jafe-jafe yi bari na ci la Cheikh Moustapha làqu muy bisub ajjuma fukki fan ak ñett ci weeru juillet 1945 dëppoog ñetti fani baraxlu ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci hijriya mu bàyyil ñi ko fi wuutu fasub àggale liggéey bu mag bi nga xam ne amul jenn jamono ju mu noppi li ci sànq dooleem ci diirub fukki at ak juróom ñett yi mu nekk xalifa waaye bu fekkee ne sunu borom mu tedd mi subhaanahu wa taala lim dig ñi sànq seen dund gépp ci yoonu yàlla du jaas moom mi wax ne fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udiicu amalan aamilan minkum min dakarin aw unsaa baadukum min baadin والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في السبيل وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الصواب kon sikkuwul ne Cheikh Moustapha laq na ngërëmam laq mbégum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ngërëmal xaadimu rasul kon tey jii manees naa wax ne képp kuy wuyoo murit mbaalu baax yi teel la ameel nga njukkal jàmbaar jooju wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.